asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci ndigalul sëriñ Mouhamadul Mountakha Mbacke xalif général kullu murit yàlla na fi yàgg lool te ànd ko gu wér ci kilifteefu sëriñ Mouhamadul Habib xalifa sëriñ Abdullahi Mbacke xaadimu rasul sëriñ Cheikh Abdou Mbacke xalifa sëriñ seex Mbacke daal Rahman mooy nuyu mbooleem mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi di leen sant di leen gërëm ci seen i taxawaay yu rafet ci mbooleem li ñu weesu. di soññi boppam nag di soññ ay rakkam di soññi mbooleem taalibe yi ci liggéeyu université bi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Muntaxa xalifa général kullu murit di def ci Touba. sëriñ Cheikh Abdou nag nee ne mi ngi ñaanal mbooleem taalibe yi sëriñ bi gàttandu leen ak ndimbalam ak tawfeexam ci barkeb sëriñ Touba Xaadimu Rasuul wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.